وصليا يا إلهي وجيا أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد نور عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين mbokk yi asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di baalu ñëpp a te di baal ñëpp a di ñaanal ñëpp a jàmm te di ko sàkku ci ñëpp tabaarakallah di jiiteel nuyoo bi kilifa diine yi di si jiiteel sama sëriñ Seydil Aboubacar si ibnu Muhammadul Mansour si balxaw bi di nuyu Serigne Mountakha Mbacké tabarakallah di nuyu Serigne Mahi di nuyu kilifa yëpp tabarakallah di ñaan yàlla mi nga xamante ne moo amee jàmm yàlla neen yàlla defal jàmm bi jaahi maulana muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu waa Sénégal ñëpp tabarakallah di ci jiiteel waa waa Kifne tabarakallah télé Kifne TV mboolem ku fay liggéey ak EFK eh, rajo képp ku fay liggéey ku si nekk ñoo ngi laa nuyu bu baax di si jiital Seydil Mohamed di si jiital Seydi Moustapha fa tabarakallah teg ci suñu caméraman yi fa tabarakallah di nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn di jéggalu fan yi moom xam naa ne émission bi moom xaw naa gëj a am waaye jàmm bëgg-bëgg rek la am yàllay dogal ak yoon yu xawa doy waar rek tabarakallah moo taxoon ñu xawoon a géej ak nekkoon ci yenn yitte yoo xamante ni mënul woon ñàkk waaye ñoo ngi ciy lu baax a baax a baax a baax baax ñi nga xamante ni doon nañu toog di xaar émission bi di ma vocal di ma woo téléphone di ma laaj tabarakallah tabaarakallah ngi leen si jégalu baax a baax waaye di leen jégal ni commencé waat nañ ko incha allah rabbi mu mel ni dañoo dugg ci. guddi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa mooy weeru gàmm te ñu si bari ñoo am luñ si baaxoo di ko def mooy burdatul madix ndax yonent bi sallallahu alayhi wa weeram gi ngëneel la bis bu mu judd ngëneel la ci at ba mu judd tamit ngëneel la te lépp nekk atum mbégte nekk weeru mbégte nekk bisu mbégte tabaarakallah moo waral yàlla ne laa uqsimu bi haza al balad wa anta xillun bi haza al wa walidin wa ma walad kon fa tabaarakallah mu mel ni weeru gàmmu la ñu dugg moom la arab dina rabiul awal ñoo ngi ci ndokkale ñëpp ñëpp li waykat bi waxoon rek mu ne weer bi wa aamun summa shahrun summa yawmun ataa fiihi huda xarnun huruni sururun fi sururun fi sururun waidun duna ayaadil uyuni kon mu mel ni lu wax rek wa at ba sururun mbégte la su ma shaharun topp weer gi yonent gi judd sururun mbégte la su ma yawmun topp bis bi yonent bi judd sururun mbégte la mu ne ataa dikk ne fii ci weer googule ak at woowu ak bis boobu la xarnun xuruni sangu yi mooy Seydina Muhammad waaye waidun bisu juddu yonent bi feet la goo xamante ni duna ayaadil moo gën a màgg ci feet yëpp kon mu mel ni ci foofu la ñuy dugg waxtaan ci burdu tuuti di defal occasion dem ba sama dëkk di nuyu xalifa suñu suñu xalifa mooy sëriñ ab euh, sëriñ Assane di nuyu sama papa sëriñ Issa Diène ak sëriñ Daouda Mbeng ak Serigne Baye Youssoufa Diagne ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu samay soxna yi tabaarakallah mu mel ni li ñu war a waxtaani mooy Buseyri bi muy tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa ci première bunt ba di wane ni mu soppee yonent bi sopp gi mu sopp yonent bi ni mu ko def ndax boo demee Kaolack ñoom ñoo ngay burdu soo demee Tiwaawoon ñoo ngay burdu boo ñëwee Dakar ñoo ngay burdu ñëpp ñoo ngi naan mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalxi kullihimi mu ni mawlaaya ee yow suñu boroom salli yàlla nga julli wasallim nga sëlmal abadan ba fow ñu ni ci kan mu ne alal xabibi ci soppe ga mu mel ni Buseyri dañ ka laaj soppe bi kan la mu ni kooku ne xayru xalqi kullihimi lu yàlla bind rek mu ne kooku mu ci gën ndax mu muhammadun basharun laakal bashari mu ni Seydina Muhammad mbindeef la waaye melul ni mbindeef yi yonent bi sax wax na ko moom mu ni man yonent bi nit la waaye fi ma wuutee yéen mooy yàlla daf ma jox wax yu kon wax yu bi ko yàlla defal moo tax mu wuuteeg ñépp Busayri moom da doon woy ay buur am na ñu ni dafa feebaroon doon way yonent bi am na ñu ni feebarul yonent bi moo ko feeñu pour moom mu way ko am na ñu ni déet moom dafa toog ba xalaatat ci boppam ni sama baat bu neex bi may woy mbindeef ni man te am na koo xamante ni moo gën ñëpp ma war koo woy te wayu moo ko ndax ki yàlla way yaakaar naa bu ñuy way kooku rek lañu ñu war a way moo tax moom mu jël xalimam mu ne amit tazakuri jiraanin bisi salamin mazajta dam an jara min muqlatil bidami waaye boo koy firi da ngeen naan am mazajta danga ndax danga jaxase dam an rongañ jaraa guy daw min muxlatin bi dammik cik mbaru bët ngir lan min tazakkuri fàttalu gi ngay fàttaliku jiiraane ay dëkkandoo yoo xamante ne bi si salamin ñoo ngi barab ba naan zi salam ndax barab boobu Mouhamadou Mansour bal xaw mi way na ko ci ya zab yata bisi salam tar a siyaala wassalam hajjat alayya law atan tufdi alayya bil alam waaye mag ñi bu ñuy way dañuy xaj seen jëmm ñaar mel ni Buseyri moom dafa xaj jëmm ji ñaar bi nekk ni bii bi di poser ki question waaye ki ba léegi tontuwul muni ni ndax am habati rihu min tilqa'i qazimatin wa aw madal barqu fi zalma'i min idami muni ka am habati ndax dafa la may ndax dafa la upp ar ngelaw min tilqaa i kaasimatin ngelaw goo xamante ne moo ngi jógee ci barab bañ naan tilxaaw kaasima barab bi nga xamante ne moom lañ naan kaasima ndax ngelaw lool moo la ëpp wala dit mu ne wa aw mada wala dafa suuy albarqu milax fii zalmaa ik ci biir lëndëm min idami ba léegi beneen jëmm ji ba léegi tontu ko léegi beneen jëmm ji tontu ko ko moom la Seydi doon wax fële abada buruhun taxta junqu zalaami am wajhu mayyata am rubu'u shamaami إن الربوع بشارتي وأمانتي وربيع حلبي وحي حير سيامي والدمء إذ ربوع ربوعنا جار وجارح منحري بالسحام مه أزلي لو حست علما لم تلوم هل عزلي مثلي لم يكن بحرامي mu ni fama li aynayka in qulta akfufa hamata wa ma li halbika in qulta istaqi yahimi mu ni fama déet li aynayka di ñeel sa ñaari bët in qulta ndem wax nga ak fufa feguleen xaamata ñuy dotti ay rongoñ bët yi boo nee bët yi na ngeen arrêté seen rongoñ yi mu ni sa ñaari bët yi dañuy gën sotti rongoñ mu ni wamaali xal bi ka déddi ñeel sa xol in qulta ba mu waxee istaqi yéhi mi na nga xerawlu na nga taxaw yeximi ñi aji gëlëm moom la mam Abdou di wax fële ni man sama xol ni mu mel ci yonent bi inna hubba nabiyi xaalata laxmi wa izaami wa damma duuna riyaayi bu seeri ne a yaxshibu shabba anna alhubba munkatimin maa bayna munshajimin minhu wa muttaribi mu ni ko attention ah, a yaxsibu ndax danga ngaa njortu ni a yaxsibu ndax danga nga yaakaar adnal xubba naka mbëggeel sabba day sotti munkati mi muy aji nëbb mu ni bay na mun saji mi mun li nekk diggante mbari bët minqu ci nit ki wa muftarim ak xol bi aji lakk mu ni ba xam ndax loolu nit mën na ko nëbb ñu ni déedéet am beneen góor bu ko feeñu mu ni wa in katamtu law atun adarra jismi bil alam wa in urid azhara laamu wa layti lam ulam mu ni lawlal hawa lam turix dam an ala talalin wala arixta li zikril baani wal alami ba léegi Buseyri duggagul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ci xasal bi rek la toll xasal mu ni lawlal xawaa bu nekkul woon nag bànneex lam turix du tuur lam turix du sotteeku lam turix du daw dam an rongañ ala talalin ci aji gent kon bu boobaa tamit loolal xawaa bu nekkul woon bànneex wala arixta du ma loo li zikril baani ñeel garab ba ñu naan baan wal alami ak garab guñ naan alam mu ne fa kay fa tunkiru naka ngay weddee naka ngay weddee hubban cofeel cofeel goo xamante ni ba seeda jëmm yonanti bi noo koy wedde bihi ci seeda googu alayka ci la nekke moom yonanti bi uduulu wala alayka ci la nekkee uduulu dammi i way maandub rongañ was wasaxami ak feebar moo tax Seydi Xaaji Malik nee na farba ala majnuni layla inna li daa an dawiyan ma abala saxaami xolol foofu ak fii ñoo xaw a toll mu ni nanga ndànk ko ci dofub layla ga farba nanga ndànku nanga def attention ala majnuni layla ci dofub layla googule daan ci jangaro go xamantene yang dawiyan dafa sah dak ma abal sahami amul benen garab bo xamantene mo kay safara am am way kat bu ne la in kana yajri damu shababatin ala ghairi layla wa dam umu muni su fekkente ni waxambaane yëpp dañuy jël sen rongay diko joy benen jigen budul layla mu ni ñom ñep sank nañ seen rongañ mu ni kenn ku si nekk booy jooy ci Layla nga wara joy Layla gogu nek euh amna histoire am spéciale xam naa yoon dina ci dugg ci majnu ne Layla gogu la. bu seeri wa asbat wa as wa asbat al wajd qat qat tayya abratan wadanan مثل bagaari على حديك ولا عنمي mu ne wa asbat te saxal nga al wajdu njàkkare xatayya muy aji bind abratan ci garabu abra wadanan ak songoon mislal bahaari ba mu mel ni comme gàncaxu bahaar ala xaddayka ci sa lex wala anami ak garabu alam mu ni naam sara tey man ahwa fa arraxani wal xubbu yactaridu lazzaati bayit bi boroom xam-xam yi nee nañu képp kuy tëdd di ko jàng balaa ngaa génn àdduna di nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa naam sara tey fu man ahwa fa arraxani wal xalbu lazzaati bil alami mu ni kan na am waawaaw sara rañaane na lan moo rañaan mu ni tey man ceññeer ka nga xamante ni ah waa bànneexu na ci yonent bi fa arraxani mu noppal ma mu ni wal xubbu cofeel gi nekk yaxtaridu des na gaar allazatun bànneex bil alami ci coono bil alami ci métit moo mu ni soo bëggee yonent bi mu ni coono boobu bànneex bi dañoo effacer coono gi ndax bëgg yonent bi rek dafa doy lu ne ndax koo xamante ni boo ko bëggee soo dee yéen ñaar yéen bokk benn keppaar ca aljana kon loolu doy na lu ne ndax moom moo ne man ahabani kaana maa i fil janna mu delluwaatam safara yaa laaimi fi lhawa usril maaziratan minni ilayka walaw ansafta lam tulami yaa laaimi yow mi may yedd yaa laa imi yow aji yeddi sama sa xol bu jeexoon takk ci yonent bi dooma wedd moom la mam abdu di ni euh, yaa azuli am na fa mu koy waxee ni euh, yow mi nga xam ne yaa ngi may yaa may yedd te réer rek tax nga yedd ma mu ne boo amoon xam-xam dooma yedd maam Seydil Haaji Malik nee na mah azili law xusta ilman lam talum xam xal asli mislam yakun bi xaraami mu ne mah ndànkul mah dafal attention mah teeyal mah dalal azuli yow mi may yedd dafal attention muni ni sama cofeel ci yonenti bi ak ni ma mel ci yonenti bi def ci attention buma ci khas mukk te buma ci yedd la xusta ilman lam tal bu amon xam-xam doo ma yedd man Seydi El malik ha ya azuli fi hubbi ahmad jahlan hal aslu misli lam yakun bi xaraami bu seer ni adaka dépensé na la jéggi na la romb na la adaaka xaaliya samay mbir samay situation dépassé na la bu yàgg la sirra déet mu ay nëbb sama situation du ma ko nëbb nëbb ma ko kenn waaye dépassé na la ndax nit dina nekk ci situation yoo xamante ne booy wax ak moom sax du la faale ndax mbir mi fi mu koy toll la gars yi dëgg naa nekkoo de absenté nga waaw ndax mbir mi daf koy toll foo xamante ni xelam day dem maanaam moom fi muy xalaat ak yow fi ngay xalaat yi dafay wuute day wuute liggéey na seen maayin du bokk ndax moom li muy li muy use yow doo ko use bi mustatirin anil wusaati walis ràmbaci wala daa in di du aji saafara bimunsaxami wala bimunxasimi yow mi nga xamante ne yow yaa ñëw pour yedd ma yow boo réglé woon doo ma yedd beneen jëmm ji mu mel ni day ñëw di tontu beneen bi mu ni mahattani nusqa laakin lasta asma'uhu wala laakin lastu asma'uhu inna al muhibba an il azuli fi samami mu ni mahattani nusqa moom nee na da koy biire waaye nag moom mu ni làkkin li fi nekk lastu nekkuma asma aw ma koy déglu mu mel ni tey Ousseynou nekk benn situation nga ñëw di ko naan booy dalal booy noo muñal affaire yi moom fi mu toll nii te situation bobu muñal mënu ko régler Ousen du la déglu wala su fekkee galo la mom mu nek ci ben programme bo xamanteni jël na programme bi teg ko xelam jël ko 100 nga da nga non non booy garaawal bu ko yenn quoi du la déglu ndax situation fi muy tollu la motax mom ben mbir rek moy nek ci ci kanamam lastu asmau, bu boba do déglu kenn li nga wara def rek mom ngay def mune innal muhibba mu ni naka aji soppi anil uzuli ci ki nga xamante ni nee na wuya yooyu da koy yedd ani sama mi ci tëx mu ni inni naka man ittahamtu gëlëm naa an nasiha laaya biira googule ashaybun bi jaaw fi la azalik ci yeddaange mu ne wa shaybun bijjaaw nekk ab adu moo gën sori ani nuski ci laaya biir ani euh, waa fi nuski ci laaya biir ani tuxami ci tuuma moom mu ne bijjaaw rek dafa doy dafa doy sëkk ak waar te bijjaaw dafa doy sëkk ak laaya biir nit ki loo ko mën a waar waar waar waar waar waar ak nit ki loo ko mën a laaya biir laaya biir moom bu demee ba gis bijjaaw rek mu ne bijjaaw yooyu rek dafa doy sëkk ak laaya biir moom la Seydina Ali di wax fële wa ata mushibu fa ayna minhu mahrabu zahaba shababu fa ma lahu min awdatin wa ata fa ayna minhu mahrabu mu ne bu demee ba sa jamonoy waxambaane dàkku bi jaaw ñëw moom mu nekk bu boobaa daw làkkukaay amul lu dul yàlla rek moo fi nekk kon bi jaaw doy na doy na laaye biir te doy na waare doy na ndénkaane nit ki loo ko mën a dénk bu demee ba toll foofu rek dana xam ni carrément li ko warkat lii la gis nga mag ak lu mu nekk ci yoonu caaxaan caaxaan caaxaan bu gisee bijaaw rek dina xam ni kat jox yàlla cëram jot na ak nu mu mun a mel leneen li ci des moom dana xam ni fi mu toll nii li ko desee bareetul mu commencé góorgóorlu ci wàllu diine gi ndax lan bijaaw bi moo taxaw هل الدهر إن ترى غراب يتيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نشيط الموت والموت مورد فللكل من بحر ممات نشيب موتا بوشي نون تاي سي بريمير بونتو بي bu ñu ko yàlla mën loo ñu toppal leen ko nii ba balaa moo jeex waaye nag in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkal wa ilay unib wa ma zalika ala allahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di santat ñep gërëmaat ñep di jaajeufal ñep rawat na wa kifna fa tabarakallah ak wa EFK rajo ñom ñep ñoo ngi leen di nuyu ñu kenn dañuy ban tuddu ni bayi ñi di nuyu ñep di ziar ñep lu si jup ci yalla la lu si deng ci man mi la ba beneen euh, beneen émission tombe tomb asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñoo ngi jéggal ñëpp di baal ñëpp xaq tabaarakallah anna muhammadan al muxtaar fi liqdam